man xaw mako de en tout cas droit publicitaire rek droit publicitaire je pense que couvrir na en tout cas sen beug beug yi li ci def nak man mënumaa gëm entreprise bo xamne ne yaa ngi fonctionné mm-hmm. di am di def ay chiffre d'affaires de say say mbir de bax ngay def chiffre d'affaires ta nangu woo fay li nga xamne mo moy mooy say di def ay redressement fiscal diko ko fay euh, di fay impôt comme niko ko di def entreprise yep mm-hmm. gisuf ben entreprise bu yox te pourtant mm-hmm. fépp le metti ñeneen ñi nga xamne ñu ngi tabu tabu dafa metti ci ñom ñi nga xamne ne une partie rek ñoy yox euh, en ce moment beneen partie daal presse bi dañ leen euh, tàmmal ñu ngi assurer li ñu war a assurer ak ak vraiment euh, ku ci nekk euh, képp koo xam ne yow nekk nga en règle fi sa xel day dal mhm. mais ñiy wax ñëpp c'est parce qu'en réalité tàmm nu fay mhm. dafa am lu fe amoon mhm. loo xam ne dafa ci jamono Abdoulaye Wade du ci impôt yi kese am ci ci ñi ma ko a wax ci courant sax mooy loolu am na ñu ci bari laa wax ni état bi moom moo ko jëloon en pour mu leer ñu bari léegi nag ñoom loolu lañ tiit billaahi ci entreprise yu ñun moom macha allah wax dëgg yàlla moo tax ñu sañ a wax ñeneen ñi. la patronne de la maison moom moom day fay impôt. <laughs> ça c'est clair. mais ñun allah moo tax ñu sañ a wax ñeneen ñi. <laughs> moo tax ñu sañ a wax kër gi ñaari seexu jigéen ñoo ko moom Adama ak Awa. <laughs> Adama ak Awa. waaw daa ko ma ne la patronne. waaw Adama la wala Awa. man benn patronne laa xam bu dee nag kër gi dafa am ñeneen. nga ma ne hmm, day fay impôt. day day fay impôt. Hmm, hmm, en tout cas En France France les journalistes ils souffrent le le le ah, faut oser le dire mhm. c'est pas parce que quelqu'un qui est un journaliste il est bien à l'aise c'est pas parce que moi, il est à l'aise que yenn journaliste yi Moi, avant muy nekk à l'aise tamit il mhm. y yenn yoo xam ne souffre, le ko bam mu yegg ba mu yegg si fi mhm. voilà nga Adja il faut oser le ton et et oser dire euh, par exemple la vérité loolu mooy mooy mooy. mais ñu bari ñu bari. mais ñu bari buñ lay dem. am sax dañ koy tegoo loolu mooy wax ji. ba pare di dugg ci combat yoo xam ne yow maîtriser wuñ ko wala yow nga xam ne lii nii sax yow ñi koy def nii yëpp euh, c'est pour seen propre intérêt moom la ci ñu bëgg porter le combat. man damay mhm. gis ay journalistes yoo xam ne dañuy toog di débat am na koo xam ne wallaahi laa sama téléphone laata ma dama ko message ni ko yow li ngay wax nii xam nga ni véritablement dundoo ko. Mhm. yow ñi nga nekkal sonn na ñëpp sonn que mhm. dama ko wax ko li ma koy wax. Mhm. mu message ma de di reetaan. Mhm. parce que xam na ni man xam na ni foofu duut naa fa baaraam. li ma wax dañuy xalamal euh, patron yi wala lu leen def la bëgg ñu di ko wax et tout ça. relation moo leen téye lii ak yow. loolu ñoo war a responsable bañ loolu bàyyi leen ñu libre. très mhm. xam dañu xam xam na lépp. Mhm. Mhm. xam na lépp. laa toog ma ne ko c'est pour ça faire une toog. duñ la nawloo mukk duñ la nawloo. Mhm. voilà voilà. voilà du la na positivement. positivement góorgóorlu la jàmbaar la liggéey na voilà. très ba teg voilà. ba maa ngi fa nga. mais loolu mooy àdduna nit da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay am da ngay am lu la motiver yu demee da ngay am motivation ci àdduna. Mhm. ba mhm. pare ñu combat lu porter le combat pour yenn patron de presse yoo xam ne après sax bu nu bu nu ko épongé dette boobu yàgg nañ ko fee épongé Macky Sall épongé na ko le président Abdoulaye Wade épongé woon na. Mhm. mais gisoo mu am benn njeexital ci li nga xam ne moom mooy ci ci ci journaliste yi. maanaam. voilà loo problème foofu la nekk surtout. problème foofu la nekk problème foofu la nekk man comme comme par ni mu amee patrono de presse yi nga xamne dañuy quémande entre autres des spectacle amna ño xamne fekkul len ci dañu di taxaw taxaw fi ñu war wara taxaw ah, di liguey di rayante di di di voilà groupe bi xamna na ne yan groupe ñom ñoy fi nek sa lobby la lobby la lobby la benn lobby la rek chaque jour toutefois ñom ñooy commandé mhm. ñoom rek ngay deg ñom rek mhm. ñoy ñaxtu ñom rek ñoy ki ñom mhm. parce que ñom ñoy fi nekkoon ok tout temps yoo leen pointe du doigt non noonu lañ xamee bërëbu ba paré nan solidarité amul solidarité du corps amul corporation bi amul solidarité amul li amul sa sàngam. Mm-hmm. soldat dafa am limite. Mm-hmm. dafa am fu mu yem. Mm-hmm. ne ñëpp fay. ba noppi itam nag ñu jappalé ñi nga xam dafa ay assises nationales de la presse ñu dem fofu loolu moy wax ji mu mel lolé aussi Jibril rapidement mo waral campagne de diabolisation bi nga xamné entre autres les patriotes ñu koy tek euh, ki nga xamné modi moo di Bougane Gueye Dany euh, ndax gannaaw ay sorties nga xamné def nako aussi ak euh, vraiment position bi nga xamné ñen ñi japp nañ né mom la yor wala mom la ay employé di yor ci yenn plateau tax na ñu leen di man employé man je dirais que quelqu'un ku ci nek peut-être man di leen def yenn yi vraiment toujours duma wax ne emploi damay wax ne employé ku ci nekk peut booy liggéey da ngay liggéey ak responsabilité looy def mhm. tamit da ngay xam ne yow mi tamit sa image mi ngi nekk en jeu donc da ngay mhm. liggéey man te bëgg boo boo génnee ci plateau bi jàkkaarloog sa benn confrère mu mhm. sa père bu mu mënti doon nga xam ne yow mi véritablement jàmbaar nga ci liggéey nga yemoon strictement léegi nag Bougane man damay juger maladresse euh, sortie mi nga xamee ne def na ko ci surtout bi nga xamee ne voilà ñëpp dañu yaakaaroon dafa dem moom mu dem umra mu jaral ko mu dagg ajam ñëw fii di tontante ci wàllu politique ak yu demee noonu ak. Euh, ak convoi bi xam nga habituellement def ñu habitué jour tabaski. mu def convoi ànd ak njaboot gi macha allah peut-être def euh, wane waat. macha allah non yëpp. Eh, xëy na baax na njaboot da nga koy xiirtal ci ay diine xëy na peut-être éducation la. Mhm. mais yow mi euh, boo demee ni da dem aji ji gis nañ fi après sortie bi ji yi nga xam ne Ousmane Sonko doon na ko def yëpp moom mi ngi màkk. Mhm. ba ci dernière sorte bi nga xamee def nako fi nga xamné ne grand théâtre mhm. mi ngi woon màkk mhm. li mu do retorquer sax dafa dafa dafa ay kii euh, euh, tweeté mm, def euh, jeu de mots ba tudd grand théâtre voilà voilà waaw daal di mais yooyu yëpp mu ngi ko fekk mak mais après dafa bàyyi lépp dafa bàyyi lépp fexe ba jour tabaski ñëw fekk ko fi déggoo ko réew mi dafa jomaay ma diitoon moytul mu fay ci say loxo voilà saawa la ko woowee waaw

nga dem ba màkk ba ñëpp dañoo def ci tabaski nga fexe def la tout ba tabaski fekk la Sénégal pour nga mën a génn parce que tabaski di nga am benn euh, ñu bari dañ ko dañuy couvrir li nga xam ne kii mooy nga fexe ba am bës boobu génn amoo dara looy wax yow ñaanoo jàmm am ñaanoo lii am mais da ngay tontante mais xam nga euh, euh, Balla Gaye dafa waxoon Tapha Tine da ngay génnee stress est-ce que nekk Bougane stress lay génnee non mais xaw ma stress lay génne xaw mais en tout cas waaw mën na nekk stress parce que gis nañ fi moom moo doon wax. Ah, deuxième tour far yàlla eh? deuxième tour amul. yoo xam nga ban stress de mm. na loolu après nga leeral ko. ko wax dara ci suba tontu la moom loolu moom. la Modou Fall doon wax boo ma dem tontu la. bëggaan moom boo ko waxee bu ko dencee ñaari fan ñett bu la gisee dana la tontu bu yeboo nga waaj ko moom. loolu man du ma gis mais en tout cas. xam naa ni sorteem bi moom c'est vraiment maladroit ci koo xam ni euh, kilifa nga kilifa du saa yoo bëggee génn génn am nga ci loo nekkoon nekk ci ba pare xaar tontu du forox comme on dit euh, beneen bi ci li muy tontu yëpp man tontu bi gën mooy nga fay en tout cas. nan fay donc mu ngi naan ay amul mas nekk naa fekk Macky Sall Macky Sall amul lu ma leen loo xam ne ma ko wax gis nañ fi ñoom euh, le président Macky Sall am ay yoon yoon yoo xam ne wala sax du wax loolu mu ñëw tëj li nga xam ne moom mooy organe de presse mhm, des médias mhm. parce que dañ doon moom a joxe moom mais nan nan fay man d'accord naa sax fay euh, nga def moratoire boo xam ne ngay fay nga xool noo koy dagg daggatee di ko mhm. fay ba mu mat mais nan dem ci fay nan dem fay loolu mooy te bàyyi di bëgg lu yomb chaque jour ñu baal leen te buñ leen baalee du feeñ ci ñi nga xam ne moom mooy seen journaliste yi journaliste yoo xam ne 1500 per jom dañuy toog di ko xaar. Mhm. billaay voilà da dem mhm. gis ñoo xam ne dañuy dem dajale man mhm. dal na ma foo xam ne pass taxi sax duñ leen ko jox pass taxi am sandwich bu nu reer duñu reer duñu ndékki duñu añ nga bàyyi leen ci génn leen ci bet loolu moo am nan ko wax te ci tataay